ta ma jeli ki momit da bok ci mbeur ya xamantene xamante ne alama rakka kii alama rakka te dala wacc ab kombaawam kon doomu Bargny ben bop lañu in no har ñaar duma ko présenter de mo le présenter bopam ndax alama rakka te dama ko man magam jour bi mo man magam mala taxaw magam ba jigéen noka gungé ba stade ndax dama kay defal coins kon dama kaa dexal ma rakka koy si alama mag kii alama rakka présentel sa bopp man du ma la présenté waa Sénégal ñaa war a xam mbar li fi ne si mbër si football ay footballeur si ay karatéka si ay ay journaliste ay animateur ba ma limee juum si ay politiciens ya dëgg jëlal macha allah aja seen ziar nañ la waaw delloo waa lépp waa lépp kii toog ni jëm ji toog ni mooy kan waa kii suñu jigéen bu baax la doon koo xamante ne heure bu nu toogee si télé bu waxee ñëpp a déglu ko boobu boo waxee rek bari kontaan kon ñun amuñu fayam dafa doon jigéen joo xamante ne nii jigéen ju mën góor la moom moo ngi moo ngi def pour avenir u Bargny pour référence yi di leen gëstu di xuli si loolu ne di defaral jeunes yi Bargny yi tamit teg si waaw. macha am na solo ñu ñëw fekk leen fi tey ci final bi eh, loo wax ci final bi tey. waa final bi kontaan rek parce que nun Bargny li la ñu xamee fo kaf fo ree parce que man man démb laa fi ñëw démb la loon football tamit troisième place toon ñun ay mbër lañu mënoon nañu wax ne mbër yi waruñu football fii maanaam ñu bàyyi ñuy football fii nii. ma même football bi bi mu commencé sax Dakar la ma fekkoon regroupement ma bàyyi sama yiite yëpp maa ngi woon regroupement ma bàyyi regroupement bi ñëw fi ngir bi kese parce que ñun font moo ñu ñor Wow. Machallah. Euh, vous qui est le champion d'Afrique en piste ski 80 euh, kilos hein? nest ce pas. le champion champion d'Afrique en piste ski 80 kilos. 33 pays ñoo Sénégal a champion d'Afrique en 80 kg. kilos loo wax si loolu content, rek ndam suis ko ñu amal parce que nun dama naam bu Sénégal vous ma un barnier de présenté parce que duñu wax siini kese em si dañu naan siini bu Bargny kon loolu rek la parce que bu ñu nee Bargny rek day ma ni man maa ngi sigil sama dëkk maa ngi maa ngi maa pour sama dëkk bu ma demee sama dëkk laa njëkk a moo tax may xare di rey sama bopp kon loolu doole sant la waa kon maa ngi dem di si am ndam mag ñi ñoo ngi may ñaanal jeunes yi ñoo ngi topp sama ginnaaw di ma dooleel kon loolu doole sant yàlla la waaw. macha am na solo. mais compétition bi une préparation bi nan la demee euh, parce que au moins yaakaar naa ne am ngeen fa lu parce que un mois mais préparation bi nan la demee woon ñaata séance ngeen doon def par jour. waaw préparation bi comme préparation yi ñu doon def rek trois séances par jour yàgg na trop wante lo mo ñu ñor kon préparation bo pour bañ ñak parce que nous bu ñu rek dañuy doli sant yalla parce que nous ñoo ngi loo xare pour Sénégal c'est pour bari tamit waaw lo ta préparer bi dire dire na. wante gis nañu suñu bopp bu baax waaw. Euh, première bi nekkoon Tunisie amame ngeen demoon am quatre médailles d'or bi yoon deuxième édition bi ñëw fi nekk fii Sénégal ngeen am six médailles en or ñaari médailles kese moom ngeen ñàkk loo wax ci performance boobu parce que loolu performance la quoi franchement. waaw loo loo mooy yoon sax parce que ñun ñoo organisé bu ñu nekkee si dëkki jàmbur du ñu a fii parce que doon naan ñun ñoo fekki ji wante ni ñu nekkee suñu dëkk doonoo da ngay gëm ne li nga nekk nii war nga si mën a génne moom la moom la ñu yóbbu moom la indi ba am si médaille yi ñu si am kon loolu dooli sant yàlla la parce que gars yi travail na si ba baax ba am médaille waaw. léegi la wax équipe bi nga bi nga bokkal nekkal regroupement ñoom général Malika ñoom Cheikh Diagne ah, ñoom Mbaye Diagne eh, ñoom Mbaye Diop ah ñoom Yamou Dakar Adama Thior ak Cheikh Sadibou Sarr ñoo ñëpp ak jigéen ñoo leen di wax. waaw gars yi di leen kontaane rek parce que gars yi moom daa am lu leen jamono yi ñu toll mooy dañ dem ba ñëw 60 mille lan laal taloo neexul gars yi moom la ñuy kaas Sénégal gi moom la kaas ministre bi waxuñu dara kenn waxuñu dara ñu bàyyi ñu noow nga ñëw présenté Sénégal lu mel ne Sénégal nga présenté ko indi woo dara CNG mën la jox 60 mille kese waxaatu ñunu dara ba léegi nii taloo moom rafetul gars yi war nañu mën a gëstu teg nu loxo parce que nu ay ndawi Sénégal Sénégal moo ñu ñor te Sénégal la noo doxal kon bu ñuy doxal Sénégal war nañu mën a gis suñu bopp si Sénégal gars yi teg nu loxo jàppalanu yéen kon euh, d'après dix médailles ngeen am en tout parce que am ngeen six médailles en or trois médailles en argent ak benn médaille de bronze d'après performance boobu yëpp 60 000 francs lañ leen jox. ku nekk 60 000 la lan la jox kon loo loo loo ku ko dégg sax dafa ñaaw loo du kontaan kenn du si kontaan. parce que boo gisee li tax bi ma ñu gisee nii defuma dara wanul ma sax wanu ma nit ñi sax jël naa médaille wanu ma nit ñi def naa dara parce que kontaanunu kenn kontaanul parce que kontaanoon di nga gis soo dëkk jénne soo lépp a jénne wante ñaaka kontaan moo tax kenn jénnewul kenn teerowuñu kenn léewunu moo am nañu tarrement si suñu komba waroon ko yëgal nit ñu toog regroupement ni Sénégal la ñuy xee bu pare doog a ñëw waa suñu komba te vraiment boo ñu def ko ba ñu ñëw amuñu si dara kon loowu loowu moom neexul waaw. mais est-ce que jotul fekk am ngeen euh, euh, association de lutteurs en activité su ma jumel yaakaar naa Thiaka Faye moo ko moo ko jiite est-ce que jotul ngeen defaree réunion toog waxtaan ci sortie ngeen di def au niveau international. tournoi CEDEAO ah euh, Jeux olympiques ak yëpp jotul est-ce que ngeen def benn réunion waxtaan ci loolu quoi yéen mbëri. non ñun moom loolu réunion wu si quoi réunion wu ñu si parce que ñun moom dama naan kenn waxoo ko si ba léegi nii kenn waxoo ko si ba léegi waaw. ñooy waxtaan suñu biir pour mën a trouver solution ba ministre bi recevoir lu lan moo tax euh, autorité joxuñu gëdd la lu simple parce que bu doon tey euh, football. équipe nationale bu ñëwee ñoom ñëpp dañ di recevoir jox ci kër jox ci oto yi jox ci xaalis bi ah même athlétisme sax am na benn boy bu jël euh, xaw ma euh, champion d' Afrique de moom kese mooy le seul africain bi nga xamante moo jël champion d' Afrique kii soo soo la nga daan cent dix moom aussi si quatre vingt mille ko jox mu gëdd ko mais loolu noonu est ce que jotul pour ñu considérer football ak ji def ko mooy mooy yoon ko li mu def man dama see kontaan parce boo xamante ne da ngay présenté équipe nationale. ñu ne équipe nationale équipe nationale yëpp a bokk a yem parce que Sadio Sadio Mané ni mu nekkee si équipe nationale bi di présenter drapeau Sénégal loolu lañ ko doonee ñun ñëpp parce que ñun ñëpp Sénégal lañu demal duñu dem bu naan siini bu siini barñi barñi lay demal déedéet dañ naan siini Sénégal lay demal drapeau Sénégal moo tax muy xare kon war nañu si mën a jàpp daal war nañu jàppale ñëpp gëstu ndaw yi xam ne ñoo nekk si équipe nationale bi parce que Sénégal doon fi comédien nga am nga am fi nga tekki fi moo gën a gaaw nga doon mbër doon nekk équipe nationale tekki waaw. loo ko loo autorité yi commencé ko du CNG parce que CNG c'est le démembrement de l'État CNG ci ministère des sports la tàggoo depuis CNG ministère des sports ba ci président loolu leen di wax pour ñu mën leen accueillir recevoir leen loolu leen di wax. waaw gars yi wax ñu gëstu ñu rek gëstu ndaw yi parce que ñun ndaw yi liggéeyal moo ñu ñor parce que ñun ko si gis day liggéey. mënoon nañu taxawaalu def leneen wante doon doon bàyyi yow yëpp ngir suñu avenir pour defar suñu avenir pour liggéey pour suñu drapeau réew pour rafetal suñu drapeau réew comme bu ñuy rafetal suñu drapeau réew yoon la autorité yëpp gëstuñu jàppale seen ndaw teg leen loxo parce que loo moo leen ñor ñoom loo moo loo moo leen war kon nan ñu teg loxo gëstuwaat ñu ñu mën a xam li ñuy defaat waaw. macha allah foo toll ci combat am nga combat bëre dëru bi. waa lakkatoo saay bëre. le 14 juillet le 14 inshallah léegi lay wax fan si waa di woo waa Bargny gépp di woo waa Bargny Minam Sindo yen ñangal tubaab jalaaw ngaparu yoof joofeer gépp di woo ñëpp ñu teew fukki penc yëpp ak ñaari maa leen di woo ñu taxaw ñu di woo ñëpp di leen wax ne gars yi monsieur le maire mu taxaw nu bu baax a baax parce que ndaw yëpp bëgg nañu dem lu mu toll nii ngi fi di woo autorité yëpp ñu jënd ticket yi pour ndaw yi dem man bu ma sañoon ndaw du jënd ticket autorité yi ñooy jënd ticket yi pour jox ndaw yi ñu dem stade parce que bëru Bargny mooy bëre ji te noonu dañu naan Bargny moo nu ñor ba nu amee ndam Bargny la nu amal ndam te dañu bëgg a dem jëli ji ndam mi indi ko. man man waxuma man sama boppa dama naan bu mbëri bu waa bari ñu nekkee si stade bi rek damay dem jëli ndam li indi ko incha allah man loolu rek moo ma ñoon bu ne bari ñu gépp mobiliser ñëw jàppale ma gunge si sama bés ma dem jëli ndam li indi ko waaw. préparation combat bi ak euh, préparation tournoi beach bi mbaa du la indi cap ci loolu. déedéet arrangé na ma ba baax a baax a ba parce que man gëm naa ne bu ma demoon tey tey bu loon tey jii bu ma demee jëli ji ndam la indi parce que waa Bargny looloon may xaare looloon gis si man loolu laa leen bëgg a indil tamit ñu ñëw sétance ma ñëw daan jàppa daan ñëwaa ñëwaat ñu feete ko Bargny fii incha allah. sa adversaire xam nga ko. xam naa non dama koy dégg nii rek man man dama naan man làmb bu ma si ñëwee xamu du ma ne bu ma bokkoon kër la xam. naa ñëw def li may def rek dem ñibbi parce que loolu mo wa waa Bargny di yebee fu ma mënti dem waa Bargny loolu lan may yebee kon damay dem jëli jër indiwaat. mais est que bokkoo ci joueur yi nga xam kii mbër nga xamante ne euh, boo xamul bi da ngay wut am teg kase bi di ko seetaan bokkoo ci genre am lan lay bëre. déedéet loolu bu ma ko defee dama man damay lii sax damay xaw a damay xaw a tuuse tuuti loolu du ma ko def man ma ñàkk laa wallu daan la mu gaaw moo gën a gaaw ma wallu la daan mu daan la mu gaaw. moom bu ma la walluwulee man na la dan facilement mu gaaw waante damay ñaan yalla mu may nu ndam rek ba nu mën ka ñew fété ka barñi fi parce que wa barñi lo la ñuy xaar ci man waaw. acha sa dernier mot lay tàggatoo ak loy wax supporter yi ak fans yi ñi bëgg seen ni lo leen wax. wa di siara ñew rek di leen nuyu di leen wosi sama bés ñu ñew taxaw nu dooleel ñu ñu jël seen ndam rek lo moy sama dernier cadeau inshallah waaw. jaajëf rafet na mais lebu waaw li seen wax nonu lo ci wax. représenté représenté Sénégal ci beach wrestling bi am trophée bu mel ni médaille d'argent ñu jox leen 60 000 francs loolu loo ci wax. waaw ñi ñi ñaa war a xoolaat rek fédération bi ñi géré wàllu làmb bi nañoo xoolaat gune yi nga xamante ne ñaa la dem la jongante li ñay moom nañ ñàkk a jox te bañ a jël li nga xamante ne moom la gune yi moom gune yi dañaa sonn bëgg ña ña jàppale kon bañ a demee la joxee ña doole ñay xam-xam si li ña liggéey nañ ña jox li ña moom naña kuc alali jàmbur askan wi ku kuc li lit ki liggéey na ka bàyyi na bàyyi kuc bi kuc moo la téye li nga xamante ne aja léegi loo wax ci euh, kii bi combat bi nan ngeen ko préparé combat bi am lo 14. kon nga bi dama jàkkaarloog askan wi jàkkaarloog waa Bargny la o moomoo jee ñu tegal. waaw aca nga ne waaw dama jàkkaarloog dama jàkkaarloog waa Bargny la jàkkaarloog waa Sénégal Ndiaye di wax waa Bargny fukki penc yeex ñaar dafa oote le 14 juin daa am ab combat te dañu bëgg incha allah Bargny gépp a giine paa nan nu ñaanal gunge ba si gunge nan nu gunge ba si tali bi ñaanal nu ngu gone yi mairie nanu génne gunge nu ba si yi ba kenn des kilifa yi may leen ay oto bëggunu benn ak oto bëggunu ñaar bëggunu ñetta bëggunu ñeenta bëggunu juróom cinquante car la nu soxla ay ticket nag gune yi ba ñu dem stade te ina ngi si dëkk bi bëgg participer si développement bi dëkk bi Ousseynou ndjay mi nga xamantene mo organiser ka ki bi dama ka ci o te dala uyu ba baax le o wa Pastef fa barni le o patriote yi le o ña nga xamantene duñu ay Pastef wa le o autorité barni na nañu ñu jappalé ka ndax ki ab champion la te ñun barni mo ñu ñor sini man sa pare na ma dimba xamna la santa demal une barni ñangi ma dama wara jappan nit ki rek di gësam ka dan ka danal ko andil nu ndam li guddi guddi barni yal na la yalla sam ak Serigne Babacar si yal na la ñaanu waju toppa yaruna teyna nun nag noo si des def na li mo def ba pare ma nge o ñep bàyyiwuma ken est-ce que des jotul pour euh, Quench uuf la ñom ñep forme bi écrit bo yep mu nekk seen nun loolu la ñu soxla sax nak ñoom ay Forza ay Coense nanu ñëw jàppale gune yi ñu ikiri ikiri bari ñi am na nu boole nu doole ba nu jógee dinañ xam ne ne lébuy bari ñi jóg nañu de fukki penc yeex ñaar yi dañ noo toppa de parce que gox gi ñi si amul ay ikiri ba ñu ñëwee bari ñi dañ ñaa yaatal de lébu yi nag daña bokk fee xamante ne ñun dañu war a am nu yëfi boppa lébub yoof ngor wakaam lébub barñi lébub tingéej lébub mbaaw sindum minam tubaab jalaaw yéen dañu war a am nu yëfi boppa dañu bokk si Senegal, dañu bokk ñi ci ñi ko terrassé nan nu ko jox nuy mbëri dañ ñaa gunge danoo feccee te danoon jëli ndam ni andi ko inshallah allah rek la ma am pour waxoon. jaajëf rafet na merci légui loy tagato loy wax euh, sa mbokk tiktokers yi euh, ak wa barni ak sa fan si ñi lay bëgg ñepp ci tiktok loo wa wax. may mbokki tiktokers yi maa ñaan ñaanal yalla guddal ñay fan rafetal liggey bi ba kenn juum te yalla ba kenn juum ma jitalé ko man ak ñeneen ñi goor ñe jigéen ñepp nak la ñaanal may fan sa ak ay maire rek la ma am la ñaanal fan sa jeunes yi tamit may soppe yal na leen yàlla fay gis na ma ne abonné yeex j'aime yeex commentaire yeex yi diaspora yal na leen suñu borom sàmm gis na ma ni ngeen maa jàppale yal na leen yàlla jàppale la ñaanal may kilifa yëpp yi nekk Bargny ah may responsable yi nekk yi di leen wax yàlla na jàmm yàgg président Diomaye Diakhar fay yàlla na ko yàlla dëgëral loolu rek lan kaa ñaanal Ousmane Sonko ma sell mi yàlla na ko suñu borom dëgëral kilifa diine yee aada yi yàlla na leen yàlla dëgëral yàlla yàlla tàppe yi waaye nup maire dala la commune de Bargny dexeral nu ñup stade waay lii daa neex waay lii daa neex lii daa neex waay dexeral nu ñup stade waay te yàlla tax waay maa ngi la jaajëfal tamit yàlla sin seen bi la ful la law ba mu ëlëm